ñu ngi leen di nuyu ci turu yàlla boroom jàmm ji bëgg ñépp dégg te nangu yoonu njub bi mu tëral ngir am jàmm ju wér ak moom ba faaw. am na nu mbégte ci li nu mën a dellu si tey ngir dégtal leen seen émission yoonu njub ci njàng mi weesu gisoon nanu ni bànni Israël dëddoo woon yàlla mi leen jot ci seenug njaam ca Misra ndaxte bi Musaa doon jot kàddug yàlla ca tund Sinaay bànni Israël sàkkaloon nañu seen bopp nagu wurus muy xërëm bu ñuy jaamu wante li nu war a gis tey mooy nettali bi gën a neex nu war koo déglu nag ak xel ndax te dafa xóot lool dinanu gis ni yàlla waxe woon musa ak bànni israel ñu defaral ko ab tànt ngir mu mën a dëkk ci seen biir ngir ñu mën koo jege te jaamu ko loolu moo waral sunu njàngum tey di tudd tàntu ndaje ba léegi nag nanu dellusiwaat ci tawret ci téereb gàddaay ga saar ñaar fukk ak ñeent mbind mi nee na ndamu aji sax ji wàcc ci tund sinaay te niir wa muur ko diirub juróom benni fan ca juróom ñaareelu fan ba aji sax ji woowe musa ca diggu niir wa melokaanu ndamu aji sax ji dafa niroo woon ak safara suy lakke ca njombaxtalu tund wa ci bëti bani israel musa dugg ca niir wa te mu yéeg ca tund wa musa nekk ca tund wa diirub ñeen fukki bëccëg ak ñeen fukki guddi noonu aji sax ji wax musa ne ko waxal baani bànni israel nañu ma indil sarax ngeen nangul ma ko ci bépp nit bu koy def ak xol bu tàlli lii mooy sarax yi ngeen di nangoo ci ñoom wurus xaalis xànjar ay ndimo yu ñu sóob mu baxa violet wala mu xonq cur ak ndimo yu weex ak kawru béy gu ñu ràbb ay deri yu ñu suub ñu xonq ak der yu nooy ak dénk ak diw ngir làmp bi yu xeeñ ngir diw gi ñuy diwe ak it ngir li ñuy xeeñoo ay xeer yu rafet te taaru ngir rafetal yërey sëriñ si dinañu ma defaral ak kër di tànt noonu dina dëkk ci seen biir nangeen defar tàntu ndaje bi ak jumtukaayam yépp mu méngook lima lay won ndax dégg ngeen li yàlla waxoon musa lu doy waar la te yéeme yàlla fasoon na yéene dëkk ci biir bànni israel ñoom ñi ko tooñoon ay yooni yooni yoon lu taxoon yàlla bëgg dëkk ci biir bàkkaarkat yu ni mel ci kaw mbëggeel gu rëy gi mu am ci nit ñi yàlla aji sax ji fasoon na yéene dëkk ci biir bànni israel ngir misaal ni doomi aadama mëne ame diggante bu jege te neex ak yàlla ni nu ko gise woon ba noppi yàlla ku sell la te mënula ñëw rekk am diggante noonu ak bàkkaarkat yi looloo taxoon nag yàlla sant bànni israel ñu defaral ko ab tànt bu ràññeeku ngir mu mën a dëkk ci seen biir ci anam yu yelloog sellaayam ak ndamam waaye bala nuy seet yàlla santoon musa ci mbirum dëkkukaay bi ko bànni israel waroon defaral war nañu jëkk a xam xel ne yàlla waxul bànni israel ñu defaral ko ab tànt ndax soxla fu mu dëkk déedéet yàlla aji kawe ji sàkk asamaan ak li mu ëmb lépp du dëkk ci fu loxoy nit di defar asamaan mooy jalam te suuf mooy tegukaayu tànkam lu taxoon nag yàlla sant bànni israel ñu defaral ko ab tànt samp ko ci seen biir ni nu ko waxe woon ba noppi yàlla dafa bëggoon a jàngal bànni israel ak doomi aadama yépp ni mu bëgg a amee diggante bu jege te neex ak ñoom te it yàlla dafa bëggoon a teg ci seen kanam ab misaal ci yoonu mbaalu bàkkaar wi mu tëral ngir nit ñi mën a dëkkandook moom ba faaw kon nag gis nanu ni yàlla sante woon musa ak bànni israel ñu defaral ko ab tànt ngir mu mën a dëkk ci seen biir waaye tàntu ndaje boobu warul woona mel ni tànt bu mu mën a doon rek am na sax ci mbind mu sell mi juróom fukki saar yuy benn bennal ni liggéeyu tàntu ndaje boobu waroon a doxe ay saar yu xóot lañu te amu amunu jotu waxtaan ci lépp li ñu ëmb kon mën nañu rekk jéem a tënk li ci gën a am solo li ngeen war a jëkk xam ci mbirum tàntu ndaje bi nag mooy yàlla waxoon na musa ne dafa war a am ñaari néeg waaw tàntu ndaje bi benn tànt la woon waaye dañu ko waroon a séddale muy ñaari néeg rido bu rafet te dëll lañu waroon a jëfandikoo ngir séddale tànt bi mu doon ñaari néeg néeg bu jëkk bi nag béréb bu sell ba la tuddoon néeg boobu kenn waru fa woon a dugg lu dul sëriñ si maanaam ñi yàlla tànnoon ci askanu aarona ngir ñu renni ay saraxi mala yuy dindi bàkkaar dafa waroon a am ñetti yëf ci néeg boobu benn taabalu wurus bu ñu daan lakke cuuraay ak lampu diwlin ak taabal ja ñu daan teg mburu ya ñu daa jébbal yàlla ñaareelu néegu tànt bi nag ñu ngi ko tudde woon bu sell ba sell dañu ko woowe bërëb bu sàll ba sell ndaxte bu tànt bi pare yàlla faso na yéene wàcc feesal néeg boobu ak ndamam lu rëy bërëb bu sell ba sell nag dafa doon misaal jataayu yàlla di ajana kon yàlla dong moomoon bërëb boobu moo tax yàlla wax musa ne ko képp kuy jéem a dugg ci bërëb bu sell ba sell dina dee kenn warula dugg ci bërëb bu sell ba sell lu dul sëriñ bu mag ba te moom mënu ci woon a dugg ludul benn yoon at mu nekk te faw mu dugg fa ak deretu sarax si ngir bàkkaaru boppam te it ngir bàkkaaru bànni israel ni ko yàlla tërale ca biir bërëb bu sell ba sell yàlla santoon na musa ñu teg fa waxande wu ñu war a defare bant bu ñuy wax akasiya ñu taf ko wurus ba mu daj waxande woowu ma nga tuddoon gaalu kóllëre ci biir gaalu kolore googu nag waroon nañu ca denc ñaari àlliwooy doj yañu bindoon fukki ndigal yu sell yi ci kaw gaal ga nag ñu teg ca kubeeru wurus gi sëriñ bu mag ba waroon a wis deretu mala benn yoon at mu nekk ngir yàlla mënoon a jégal bànni israel seeni bàkkaar loolu taxoon yàlla tudde kubeer googu baalukaay ba gannaaw loolu nag yàlla wonoon na muusa ni ñu wara defare rido bu kawe ba wara wër tàntu ndaje ba miir boobu di miiru ëtt ba waroon nañu ko defare rido yu weex ca rido ba wër tànt ba nag waroon nañu ca def benn bunt noonu kenn du mëna dugg ci biir ëttu tàntu ndaje ba te jaaruloo ci buntu ëtt bi ci biir ëtt bi nag ci kanamu buntu ëtt bi yàlla santoon na musa ak bànni israel ñu teg fa ab rendikaay bu ñu defare xànjar noonu képp ku jaaroon ci buntu ëtt ba dafa wara a jëkk jaar ca rendikaay ba ci loolu nag yàlla dafa bëggoon a jàngal bànni israel ak doomi aadama yépp yoon wi ñu wara jaar ngir jege ko wan yoon la woon moo doon yoonu deretu sarax képp ku bëggoona dugg ci biir ëttu dëkkukaayu yàlla bi faaw mu dugg ca ak saraxu mala suy dindi bàkkaar noonu yàlla doon na jàngal bànni israel ne kenn mënu ko jege mukk lu dul ci kaw deretu sarax looloo taxoon yàlla wax muusa naan deret mooy yor dundu mbindeef man ci sama bopp sedd naa leen deret ñu war ko tuur ci rendkaay bi ngir jéggalul leen seeni bàkkaar kon nag su kenn bëggoon a jaamu yàlla faw mu jëkkoon na ko jébbal saraxu mala ngir mën a jot mbaalug bàkkaaram kiy jaamu waroon a indi yëkk wala xar wala picc ci ëttu tàntu ndaje bi ci kanamu rendkaay bi nag la waroon a teg ay loxoom ci bopp sarax si mu indi woon nangu ci kanamu yàlla ne bàkkaarkat la te yollool na dee ndax ay bàkkaaram gannaaw loolu dafa waroon a rendi ma dékku deret ji ci ndab ci kaw loolu benn ci sëriñ yi waroon na jël deretu sarax sa wis ko ci kaw rendikaay ba ak ci suuf si wër rendikaay ba lakk sarax sa ci kaw rendikaay ba noonu la yàlla mënoon a baale waayu israel ji ay bàkkaaram ndaxte mala ma amul woon genn tooñ wuutu na tooñkat bi waaye ndax deretu mala mënoon na fay boru bàkkaaru doom aadama ba faw déedéet bani israel waroon nañu def aka defaat sarax yooyu at mu nekk matuñu woon doyuñu woon ci selaayu yàlla ba faw saraxi mala ya ay missaal rekk lañu woon ci ramukatu àddina bi naroon a ñëw dee ci palaasu bàkkaarkat yi benn yoon ba faaw ngir yàlla mën a baal doomi aadama seen boru bàkkaar te ba tey dëkk ci njubteem ngir missaal li ramukat bi waroon a defal bàkkaarkat yi yàlla sàkkaloon na bànni israel benn bés ci at mu nekk muy bés ba sëriñ bu mag bi waroon a dugg ci ñaareelu néegu tàntu ndaje bi di bërëb bu sell ba sell bés boobu mu ngi tuddoon bés bi yàlla di muur bàkkaar yi ci bés boobu rekk la sëriñ bu mag bi amoon sañ-sañu dugg ci bërëb bu sell ba sell wis deretu sarax ci kaw baalukaayu gaalu kóllëre gi waru fa woon dugg mukk te yóbbaalewul deretu mala mu amul sikk mi muy jagleel yàlla ngir bàkkaari boppam ak yu mbooloo ma ci noonu nag yàlla wone na ni ramukat bi naroon a ñëwee tur deretam ngir yàlla mën a baal bàkkaarkat yi te teeru leen ci jataayam bu sell ba faaw. ah mbokki déglukat yi ci lu wér sunu njàngum tey mi xóot na lool te neex am na lu bare bare bare lu nu ci bëgg a wax waaye sunu jot léegi mu jeex waaye bala nuy tàggoog yéen tey am na leneen lu ngeen war a xam ci mbirum tàntu ndaje ba nanu dem nag ba ci saar wi mujj ci téereb gàddaay ga mbind mi ne na noonu la bànni israel defe bépp liggéey bu aji sax ji digaloon musa bi musa seetloo liggéey bi mu gis ne bànni israel def nañu liggéey bi yépp ni ko aji sax ji digle noonu musa barkel leen noonu niir wa daldi muur tàntu ndaje ba te ndamu aji sax ji fees tànt ba musa mënul woon dugg ca biir tàntu ndaje ba ndaxte niir waa nga ko tiimoon te it ndamu aji sax ji feesoon na tànt ba ndax gis ngeen li xewoon gannaaw ba tàntu ndaje ba pare ndamu yàlla wàccoon na ci kaw tànt ba ba fees bërëb bu sell ba sell te leerug ndamu yàlla ne ray ba raw leeru jant bi sax li nu wara fàttaliku mooy ci loolu lépp yàlla dafa doon misaal xéewal yu gën a am maana yi waroon a am bu ramukatu àddina si wàcce gane si doomu aadama yi ndaxte ramukat bi moom ci boppam mooy tàntu ndaje bu wóor bi yàlla joxe ngir nu mën a am diggante bu jege te neex ak moom ba faaw moom lañu mbind bi di wax ci liñ linjiil bu sell bi naan ca njaal benn ga fekk na kàddu gi am te kàddu gi ma nga woon ak yàlla te kàddu gi yàlla la woon kàddu gi ñëw dëkk ci sunu biir gis na nu ndamam mu fees ak yiw ak dëgg yow miy déglu tey ndax miin nga mbind yonent yi bu baax ba xam ni ramukat bi amale woon lépp li tàntu ndaje ba ak saraxe mala yi doon misaal ndax li nu jàng tey dafa jafe xam te jafe gëm ci yow ak nu mu mën a demee nanu fàttaliku ne léeg-léeg dafay am ci kàddug yàlla lu jafe xam te jafe gëm waaye loolu terewul muy dëgg looloo tax aji sax ji moom ci boppam nee na samay xalaat bokkuñu ak seeni xalaat te seeni yoon duñu samay yoon ni asamaan tiime suuf ni la samay yoon tiime seeni yoon samay xalaat soreen noonu seeni xalaat jërë ngeen jëf ci déglu bi su fekkee ne am ngeen laaj ci lu nu jàng tey bind leen nu ci yoonu njub boîte postale 370 Saint-Louis yoonu njub BP 370 Saint-Louis yàlla na leen yàlla barkeel te ngeen xalaat bu baax ci li mbind mi wax bi mu naan xelum yàlla ni mu xóote ak xam-xamam ni mu baree ba raw xelum nit